waaw solidarité dafa baax bu ngeen ko àndandoo li muy joxe bokkut ak bu ko kenn waxee mbaa ñaar li muy joxe bokku mbooloo dafa yërmande de leen ma xoolal heure bi mi nuy waruma fee fekk de moyen ñaata bu leen fàtte tàngal ji de ma ñëw ndax xam ngeen ni ma ndax xam ngeen ni yéen bu élection amoon ku leen neex ku leen neex mooy gagné ndax xamoon ngeen loolu bu kenn neex na ku dul man kenn <laughs> ma ne ma mañow man bokkuma te maay gañe gis ngeen bu candidat Goliath amee su ma nee leen mooma na doon moom parce que loolu sax moo gën a wóor pour ñu xam kanay mag yi wut candidat bu toll nii bu toll nii am amu ci am na ci gaañi ku toll nii waa bu ci ku toll nii amul itam te nangu projet de société ku tedd ki rek ku yéen daal déglu leen ma rek ku ma ni mooma muy moom ku ma ni du moom du moom ñu digal ñu def loo ñu digal ñu def ma ñëw ma ñëw amul jóge fii naan ñoo bokk koñ ak sama nijaay laak moo sama yaay bokk lii ak laa waxuma loolu waxuma loolu ngeen déglu ma laa wax alxadimiya dafa am projet de société projet de société boobu ku ci ànd moom ngeen di collaborer kooku moo war a remplacer Macky pour un laps de temps laa wax de pour un laps de temps parce que réforme yi day bari ñëpp duñ ko attan réforme yi day bari ñëpp duñ ko attan waaw maanaam li fi tubaab yi installé yëpp dañu koy réduire dañu koy réduire te bu ñu ko réduire am lu ñu leen ci delloo li ñu ciy dese ñun wax dëgg yàlla moom la ñuy korkoral moom la ñuy maslaa ak ñoom sur le plan diplomatie noonu la mbir yi di tëddee waaye réforme yi day bari réforme yi day bari moo tax ñu bees ñi faw ñu bari waaw oh, ñu bari ku ci defe ne remplacer Macky yomb na ah <laughs> booba da ngaa laaj góor gi rek góor gi bu fekkonte na xel maa ngi fi ku ko laaj mbirum réew mbirum état <laughs> nee na ku ko nee na ku ko xamul rek ak koy bëgg a doon Abdoulaye Wade nee na ku xamul état rek mooy bëgg a doon président kenn du ko yotu kenn du ko yotu ñun nag mënuñoo am problème waaw ñun mënuñoo am problème waaw ndax dañoo gëm sunu projet de société ku tedd ki baaxee ñu niyatul xayri wa xawlul xayri wa fi'lul xayri dañuy moytu tooñ ba noppi di baale te duñ ci guuxante ay lex duñu mere kenn dunu gedd duñu angoissé duñu stressé bam bi maa ngi lay gis <laughs> waaw boo bokkee ci man nekk ci sama mbooloo ma ñëw ma ñëw ma ñëw jóg leen taxaw jóg leen taxaw am na la kenn nga ko la doon maye may nañ la ko la doon leb leyit leb nga ko danga yaa wax ni bokkook ñun maam te adama du sama te bu adama amoon maam xamuñu sax yow ki nga doon jiite ñu baax ña ca diiwoon baax na insta baax na eggaat leen suuf tabarakallah waaw taalif yi rek li ma leen di màjjal daal mooy ku am tu tànk bu am juróom-ñaari at jëm kaw fexeel ba mokkal ci benn bayit ci li ma wax ci ku tedd ki néewuma bu kenn jàng taalifi keneen waxuma lool de waaye jamono bu nekk ak la ca xew fi ñu samay taalif laa bëgg mu xew laa bëgg mu xew ndax dafa bari ay sew sew waaw te dama bëgg ñu ni ma wiiw ci fii ñu ne ak fanu jëm kaay fi waxal bismillah ro jërëjëfa teet si am kuraa mbàkke nóoréen zahiran wa baatana si ñun kenn du si am kuraa ku dul si am kuraa mbàkke nóoréen si ñun kenn du si am kuraa jërëjëf teet. jërëjëf. Cheikh Amdou Kura Mbacke Ndooreen. baax na jërëjëf. Zahiran. baax na jërëjëf baatana. baax na waaw xam naa kooku di boobu di yëfi maam Thierno Mendy la moom moom daal. <laughs> doomi kan la. doomi. Hmm? ah Moussa. ah Moussa waaw. Hmm, ah waaw ah fexe leen ba seeni doom di waaw daa bëggoon a taalif waaye loolu du wees xam nga maa ngi calculer minute bi <laughs> maa ngi calculer minute Cheikh maye la ñaata ma ñëw ma ñëw ma ñëw mim réew réew mi déedéet neexu maa waxal dama ne miim réew dangeen ngeen réew mi Bamba moo ko waaye mooy ki ko déedéet ana ñi def solfège xanaa nekkuñu fi miim réew réew mi miim réew Bamba ko moom réew Bamba moo moom miim réew Bamba ko moom réew Bamba moo moom ma ñëw. waaw. bamba moo ko moom. waaw. bamba moo ko moom. mim réew. réew mi. mim réew. réew mi. mim réew. baax na jërëjëf jërëjëf. ma bu ngeen gisee bu ngeen koy def bëgguma ngeen yàgg ci bëgguma ngeen yàgg ci damay bañ ngeen déranger kenn te am na ñoo xam ni am na ñoo xam ni ni nu koy déggee du ñu ko ni dégge man wax naa lu leer bi mu ko moomee itam da koo bokk ak Sénégal yi yépp du dëgg góor a jigéen mag ak ndaw waaw léegi boo duggoon avion moo xam foo mën a jëm avion boo fa duggoon dëgg la pilote yi ñiy piloté di la yóbbu bu ñu ko moomul itam ñoo lay yóbbu maanaam réew mi ku tedd ki mooy yóbbuwaate vers le bonheur amarani rabbi bi an usarriha bi annani malazun wa mafzahun faman arada alxayra fii kilta yi daari ni fal yalluz bi mooy yóbbuwaate comme ku tedd ki mooy yóbbuwaate àjjana nag bu ñele mim réew Bàmba ko moom lu sa maam doon doon kilifa ak sa baay xamal ni ñu ngi ci biir réew mi te da bokk ak ñoom waaye jàppe ko ne bateau boo xamante ni bi rek ak capitaine ba waaw ku tedd ki mooy yóbbuwaate wa salaam